fitna wa fitna fitna d'abord da fay juddo ci li nga xam ni mom lañuy wax ragal biñu ragal suñu morom ne fay jël suñu place ne daf ñu dafa dafa dafa bëgg kujji ak ñun ne dafa bëgg a li ñu yor ragal bobu tank que wuñ ko dindi wuñ ko suñu bop ñun africain yi ñun sénégalais yi ñun nit ñi rek duñu juk ci fitna bobu parce que man dama japp ni ki nekk sama kanam warul mëna nekk sama non, sama prolongement la sama continuité la parce que tay suma ma lu mu nekk nekk sama non, sama non, suma daano ci kanam même su ñëwul sama wàllu dañuy wax non non assistance à une personne en danger donc gis nga waruñu xool ki nekk sama wet tout le temps di ko xoolee ci bët boo xam ni da ko war a ragal da ko war a brimer da ko war a da ko war a euh, xëy na teg fitna boo xam ne attanu ko beneen bi ci des mooy li ñuy wax euh, euh, l'esprit mimétique. ça veut dire quoi ça veut dire ñun dañoo am dañoo am habitude ñun nit lu ñu gis suñu morom ëppale ko te mënuñu ko am ñu ne dinañ ko yàq ci wax wala nañ ko yàq ci jëf mm-hmm. mais te yàlla dafa bind te yamalewul. dafa teg ñi ci kaw teg ñi ci digg bi teg ñi ci suuf man mun naa bëgg lu sama moroom am mais may ñaan suñu borom mu defal ma ko ma war koo mën a am ca ba mu jotee mais munu ma ni rek et nit ñëpp la nit ku weex nit ku ñuul nit ñëpp dañu am tendance bu su bu ñu sunu morom jiitoo dàq ñoo way ñu ne xaaral ñu yàq ko dàq ñoo football ñu ne xaaral ñu yàq ko dàq ñoo politique ñu ne xaaral ñu yàq ko nekk ci kuje ñëpp di ko coow ñu ne nañ def lépp ba du accéder au pouvoir nekk ci nguur ñu ne xaaral ñu yàqal ko nguuram donc loolu nag dëkk bu mu jugul fitna du fa du fa jóge beneen bi ci des moom mooy atteinte à la dignité humaine yàlla dafa bindu doomu aadama à la limite mu wormaal ko mais worma boobu looy ti def ci wuute ak moom bàyyi fa korma gi quand man mun naa joteeg yow ci li ñuy jotee yëpp na rester sur des principes ak sur des faits ñu xuloo di wax foog naa dugg sa histoire famille dugg sa histoire maam sa mam donc sunu suñu borom bugu ko mais nit ñi aussi bugu te nit soko ko defé amna am ñu and ak mom ño xamni ni mais xeyna buñu mënul tontu wala ño fayu mais fitna rek lañ koy lañ koy mottali ko bi moy injustice sociale gis nga yalla limu wat ci ci bari wul surtout nak mu wat ci temps moy ci jamono xam nga dafa dem ci wal hasri mu wat ne ñu bari ñu ci perte ñu ne ko lutax mu ne ba mu des ñen mooy ñi gëm tey sellal mais surtout ceux qui s'enjoignent dans la vérité et dans l'endurance wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri ça veut dire quoi dëgg wolof yi dañuy lépp ñu ne jàmm du am fu dëgg amul te injustice day am ci askan ñëpp teg ko ci ay kaw nit ñëpp noppi ñu ko war a seede ku ne parce que da ngaa far parce que j'ai l'habitude de dire Sénégal li ñu yàq mooy su dëgg jotee kenn du xam fa mu féete ku ne danaan kan la faral mais loolu réew mu am musiba

gis nga programme soo koy déroulé sans pour autant s'en rendre compte ci film yi am na film yoo xam ne nii xale yu ndaw ay dessin animé léegi même sax du dessin animé film yëpp la xale yi di seetaan léegi-léegi sax généralement série yu bees yi ñu génnee pour ne pas les nommer am na ci ay scènes yoo xam ni c'est des scènes violentes parce que dañu yaakaar ni violence mooy jël arme rek mi ngi ci li ñuy utiliser mi ngi ci mots yi ñuy wax donc yooyu yëpp dafay contribuer à ce que xale bi nekk dans son dans sa perspective de devenir quelqu'un boo xam ne nii il est très violent beneen bi ci des bi nga xam ne nii aussi moom laa war a mën a terminer mooy su yooyu yëpp amee ñu seetlu ko war nañoo nag mën a def ay taxaw seetlu yoo xam ni ñu ne yoon bi suñ ci jaaree xëy na yàlla mun nañu suturaal ba jafe-jafe yooyu yëpp ñu dépassé ko bi ci jiitu fondamentalement moom mooy ñu def de telle sorte que ci sunu rapport ak ñun même lépp lu ñu mën a jug ci yóbbu ñu ci fitna dafay jaar d'abord ci mer dafay jaar d'abord ci. ay soxor day jaar d'abord ci ay jalousie day jaar donc yooyu ñu waxuñu du denc nit moom nit a ànd mais nga koy sublimer sublimer c'est une technique psychologique qui dit soo amee lu la metti tey mu leer la ni su ma jugee wax musiba laay wax ñu ne la demal nga xëy na nga daw yi demal nga jàng alxuraan nga jàng say litanie say psaume de David et de Jean ainsi de suite nga mën a apaiser wu ba nekkaat ci sa dimension humaine ba nga xam ne li ngay wax di nga ko mën a mesurer sinon foo fekk ku mer mais après amaana xëy na li muy wax mun na bañ a ànd ak sagoom après lay regretter wala muy réccu bu loolu weesoo aussi il y a ce qu'on appelle euh, si vous voulez perception bi nga xamni nit daf ko wara am ci yar doomu aadama yi ci dox jam ci wax jam ci jëmbat jam loolu nak mi ngi commencé ci école yi mi ngi commencé ci programme yi mi ngi commencé ci musiciens yi li ñuy way mi ngi commencé ci ñun li ñuy waxtane parce que fam ñaari distinction à faire P positif ak P négatif ñun suñu nekké ci jam di nan ataya di lek ba sour euh, tok suñu kër ñu ben fitna dañuy am impression que jam am na fi mais du loolu am ci biir xolam depuis fukki at mais kenn doxul tànk yooyu te bis ak bis musiba rek aujourd'hui su ma joxee benn exemple bu ndaw en fait loolu moom moo xew ci ténoru opposition bi ak ci ténoru pouvoir dañ dem ci situation boo on a l'impression que n'est pas en présence de sénégalais jéppante bi ak bañante bi dafay ëpp ba ku nekk situation bi nga taxaw mun nga fa bañ a jógee te jàpp naa ne nag ci biir Sénégal ñun ñëpp ay mbokk lañ mun na ñoo am lu ñu féewale ak lu ñu wuutale mais war nañoo d'accord ci benn principe mooy li ñuy féewaloo ak li ñuy wuutaloo yëpp kenn du yëkkati lu ñaaw di ko teg ci moroomam kenn du yëkkati aussi euh, lu bon en terme d'arme wala en terme de truc war koo mën a yéene war koo mën a yéene moroomam beneen bi ci des ce qu'on la transformation violente non violente plutôt des conflits suñu amé diamarlo wala ñàkk déggo suñu biir war nañ ko mëna régler ci ñaxtu war nañ ko mëna peut-être je l'ai pas dit en français Fofu nak le brassard rouge yi baxé xam nga li si fofu le brassard rouge yi baxé xam nga kii ñëw am lu ko metti mu yëngal brassard rouge muy metti aussi nga bayyi ko mu wax li mu xalaat suba ba ngoon bu xëyee di wax xëy dina gif bu bu brassard rouge aussi xëy dina gif motax erreur la nga ni en fait man bu, bugguma gis ay brassard rouge au contraire d'ailleurs Wade defu ko non rek ni il est anthropologue il est sociologue il est psychologue Il faut ni dafa bëgg canaliser frustration wu nit ñi ba suy une frustration qui se manifeste par une violence physique donc loolu la wax transformation non euh, non violente des conflits moy suñu amé une metti créer mobilisation en tant que syndicat en tant que parti politique nit ñi génn sol sen yu ne d'accord ñu ci telle chose mais kenn du sanni xeer du tal station kenn du yak autoroute nga wax li nga mëna dégg lég lég sax ñu fa bu États-Unis Wall Street il y a des millions et des millions de personnes projet de loi bi gars yi ñu retirer ko parce que xamnañ ni nit ñi mënuñu leen supporter bis bu nek ci bi et puis il y a ce qu'on appelle l'opinion internationale ku génn fi pla place de l'indépendance wala nga ñu ne fay ñu grève de la faim yooyu yëpp ci transformation non violente des conflits nous bokk amna ñoo xam régler nañ mais peut-être exemple phare bi ñuy joxe te jarul nga koy ou quoi que ce soit parce que souvent dañ lay wax Gandhi euh, l'initiateur Euh, de li ñuy wax transformation non violente. man exemple typique la fii bi muy dem ci géej gi yorewul tous moom kese moo ànd te bi mu dellu see dafa ëndaale ndam te ñun ñëpp ngay murit ak nga ñàkk ba ñun murit am nañu weg bu rëy bu ñu am ci moom. donc suñu amee lu ñu metti mais war nañ jël xanaa exemple boobu mooy jaamaarloog ki ñu def lu ñu metti wax ko li ñu metti taxaw temm ak Pastef mais ci lu àndul ak tour deret ci lu àndul ak yàq ci lu àndul ak wax loo xam ne lu ñaaw la donc loolu daal ci nekkoon samay contribution di gërëm di leen sant ci teewlu Il terrorisme bu buñuy wax amna ay politique yo xamné amna fi ba taxna dafa indi donc sénégalais yi war nañu sen togay, parce que li xew ci rew mi kat dafa doy war sénégalais yi dañoo nekk ci weddi bo wedd ah, bu la bu bu la dafa mel boole ceeg encore ñu euh, gaaw a gëm yenn yu bon yi nga xam ni moom la ñuy jël comme on le dit en journalisme hein, euh, xaj bu euh, xaj bu màtt nit du événement mais nit bu màttee xaj loolu événement la waaw ñu lu ñàng rek lañ fiy génne te lu ñàng loolu day dem dem na ba nga xam ni kilifa yi la ñuy attaqué loolu nag citoyen yi war nañ ko xool mais lan mooy citoyen citoyen mooy ko xam ne non pas parce que am carte d'identité carte de nationalité non non non citoyen mooy koo xam ni dafay xool valeurs yi nga xam ni moom la citoyen war a yore civisme muy civilité ak solidarité koo ko mën a tekki ci ci ci wolof mu wax ma ko civisme mooy nga xool ne lii la yoon santaane lii la yoon digale donc dama ciy top. xool samay droit xool samay devoir mais aussi fexe ba ma ñu bañ a am leen luñ ma mën a ŋàññi leen li ci des civilité mooy nga bëgg sa bopp yow sa bopp parce que boo bëggee sa bopp am na loo xam doo ko def sa morom beneen bi ci des mooy solidarité maanaam ñun ñëpp ñoo bokk ànd Sénégal gi bu bu dee tàkk euh, ndakaaru rek du tàkk bàyyi Thiès féppay tàkk donc loolu war nañ ko xam te war nañoo xool soldats yi nga xam ni ñoom noonu la ñuy xoolee fraternité mooy solidarité bi parce que bu dee soldat bu sa ko xam ni bokkook moom garey bokkook moom fàllay xamoo fu mu dëkk xamoo jullit la wala catholique la mais comme yoon yéen a nekkandoo muy sa frère d'arme bu daanoo yow da ngay daw boot ko mën nañ laa rey yow boot ko nga génne ko pour rawale ko loolu mooy solidarité donc loolu la citoyen war a am waaye balaa ñuy mën a wax dara il faut que ñu xam ni réew mii kenn du ko tabax lu dul sénégalais yi kenn du keneen du ñëw di ko def ñun ñii ñoo ko war a tabax ñaareel bi moy ku ci citoyen bu ci na bu mu les bras rek di xaar nan police gendarmerie citoyen euh, euh, sécurité commence mu ngi commencer ci bopam mom ñettel bi moy rew mi dafa soxla nit ñi seetaat seen muy surtout civique ma wax bi citoyen gis citoyen gis ambassadeur famille la ku ci ci famille la waye famille je gis borom kër googu il faut que moom mu am yenn jikko yi mu mën koo saxal ci njabootam bi mujj mooy ñi nga xam ne ñoom yor nañ famille bàyyi sa doom mu nekk ci mbedd mi di indi jiixi jaaxa loolu tekkiwul dara lu dul yow mi nga xam ne yow yaay bàyyi yow yaa njëkk indi problème ndax boo bàyyee sa doom muy def lu ko ne xamoo fu mu yendu xamoo fu mu fanaan ñuy wax ñu naan day politique am nañ droit wala day def léegi yu mel noonu boobu yow yaay yaa njëkk indi jiixi jaaxa loolu yëpp nag bu amee nan la ñu war a def ñun sénégalais yi waaw parce que ñi agression yi bari na fu mu mën a amee bu dee ci géej gi bu dee ci jaww ji bu dee ci frontière yi bari na place yoo xam ne moom lañ mën a feeñee te façon yi dafa bari mais ñi koy def nag amuñu lu dul benn euh, bëgg-bëgg mooy économie réew mi yàqu jàmm bañati fee am nguur gi daanu euh, réew mi jaxasoo

dafay wér dafay am ay recoupement ñu xool ba xam dëgg la ou pas loolu lu lu jara euh, sóor la donc population yi ci boppam ñu ngi leen di woo pour ñu partager information yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seen muy force de défense et de sécurité yi parce que bu fekkee defuñu ko ngaañ ji ci ñun lay jóge donc loolu am solo la euh, dañoo war a delloo notion de responsabilité li tax ma wax ko parce que ngaañ-ngaañ bi ci bari ci internet bi la jógee nguur bi dafa war a jël ay ay matuwaay pour ku jël sa portable wala nga jël sa ordinateur di bind di wax loo xam ni yaa ngi ko bëgg a yëgal ñeneen ndax am na loo ci bëgg ñu bañatee am possibilité di def anonymat ku jël sa portable sa numéro feeñ ku jël sa ordinateur ñu xam ne noonu la wala site yi ñu supprimer loolu loolu lu am solo la mooy si mooy responsabilité boobu may wax te ñu bàyyi coxor gi nga xam ni moom moo fi nekk parce que comme li ko ministre bi xaw ma docteur waxee yow xamuloo nit ki euh, li nga xamee ne moom la nekk xamul sa vrai valeur nga wëlbatiku jël sa téléphone parce que waxul bokkul ak yow fu ngeen far nga saaga ko nga wax ci moom lu ñaaw dem na ba kilifa yi diine yi sax dañ leen ciy laa mm. loolu du dëgg du yoon euh,

demal police nga dem gendarmerie wala nga wax ko autorité bi nga xam ni moom moo nekk sa maa ngi leen sant di leen gërëm. merci beaucoup. merci merci bon li ñu dajale fii wax ji wax ji. mais vraiment trois minutes hein? non je ne je même pas trois minutes wax ji wax ji li ñu dajale fii mooy li fi jot a xew li fi jot a xew mois de mars réew mi yëngu na yënguwaay bi nga xam ni. xëy na bett nanu mais mënul nañ ko xaar wante xaaruñu ko mënoon nañ ko xaar pourquoi parce que daf fi yàgg ay nit di fi taxaw di sabab li nga xam ne ay rekk la foog ni politique noonu la wala nguur noonu lañ koy jote walla li nga xam ni danga koy ñaxtu doo ko ñaxtu ci jàmm lépp ñu def ko indi ko ci ay yàgg na fi ba bi ñuy wax fii naan pétrole beeg Naomi jon euh, documentaire bi sunu ak ndóol ak sunu ak tàngee lañu jaay ba wàccee ñu ci mbedd mi parce que amu leen dara seen xa ndaw yi jànguñu amuñu liggéey te xool leen ñii ñu ngi yóbbu seen xaalis xaalisu pétrole bi te mënoon na faj loolu yooyu yëpp kon wàcc leen ñun ñu daal di wàcc kooku lan la buggoon est-ce que da doon def documentaire ci pétrole bi wala daf ñu doon xëcc ci mbedd mi loolu la ñu tudde subversion ci tubaab mu def ñu ko ñeneen jóge fi taxaw lu nekk ñu dugg ci aar li nu bokk nangam sangam lépp lépp lépp mooy askan wi jóg leen wàcc ci mbedd mi jaamaarloo leen ak ñu yore réew mi d'accord nit mën na am lu ko naqadi mais am lu la naqadi taxul ngay pousser nit ñi tout le temps ñuy dem ci lu leen di gaañ wala li nga xam ne yàq réew mi loolu jigul benn réew. noonu lay demee ba li ñu bëgg ñu am ko wante demeewul noonu loolu mooy prétexte bi tey pour que ñu ni dootu fi amati ñu woote plateforme bi pour que nit ñi jóg àndandoo liggéeyandoo. di waxante di xoolante pas nekk ci ay parparloo politique pour que réew mi kat. ñu bañ ko bàyyi ci ay loxo ay nit yi nga xam ni seen soxla la ñuy dox guddi ak bëccëg su ñu defee nii su ëllëgee yéen ñi di ngeen mën a ñëw toog fii ci cadre plateforme bi pour wax ni eh déedéet du noonu corriger lu bari keneen ñëw ni déedéet du noonu du tere kii far fii kii bokk fii kii far fii kii bokk fii su ñuy def politique ñu def ko su ñuy def économie ñu def ko su ñuy def développement ñu def ko mais ñu def ko ci condition yi nga xam ni dinañ xam ni intérêt réew mi moom ñun ñëpp ñoo ko jàppandoo loolu mooy sensu plateforme bi nekkalu fi kenn kudul Sénégal ak askan wi ci réflexion ak ay action

suñu taxawee dañuy def seen liggéey su defee seen liggéey yan lañ koy def dañuy respecter loi bi ak règlement bu ñu def seen liggéey liñ ciy def yëpp donc na ngeen jàpp ni ci yoon la tëdd te ñu jàpp yi tamit ne ameel nañ leen njukkal bu mag. parce que bu dul woon lépp li nga xam ni euh, li nu def ak xëy na ni Sénégal tëddee ak kilifa yu baax yi fi nekk ak taxawaay bi nga xam ni ñu baree bari taxaw nañ ki ci lii bu dul woon ñoom en plus lii ñu dugg ba génn si. dina nu yóbbu feneen. xam nga soo liggéey nanu fexe ba jubook suñu bopp. nanu fexe ba réew mi juboo nanu fexe ba ndaw yi juboo nan fexe ba mag yi juboo nan fexe ñun suñu juboo suñu biir ba noppi ñu jëlaat sunu police jëlaat suñu armée jëlaat suñu àndarme def ko sunu ay moomeel parce que ku ci nekk ci ñun am nga ci mbokk am nga ci ndey am nga ci baay am nga ci nijaay am nga ci xarit loolu laa bëggoon partagé ak yéen ci xel nag lay dox. pourquoi parce que nous nous a commencé fi su ëllëgee ñu jëm fu sori ci liggéey bi nga xamné ne képp ki nga xamné ne nga Sénégal le war nga ci en place ma ngi leen remercier. merci merci merci. il ne faudrait pas que ces citoyens sénégalais je ne dis pas qu'ils sont aussi citoyens mais qu'ils sont plus citoyens que nous parce qu'ils ont fait ce que nous n'avons pas fait le l'adjudant-chef vient de le rappeler tout à l'heure ils étaient sur le front ils ont fait le tour du monde pour défendre la paix de manière générale, au moment où nous, nous étions euh, calfeutrés dans nos, dans, nos, dans nos salons. Donc, c'est des citoyens qui, après, justement, avoir servi le Sénégal et l'humanité de manière générale, dans d'autres circonstances, ne doivent pas aller dormir chez eux. Je pense que c'est l'appel pressant que nous leur lançons. Il est temps qu'ils sachent que tant qu'il y a vie, tant qu'il y a des forces physiques, tant qu'il a des forces intellectuelles, il doit pouvoir continuer à servir le pays. Et de cette manière-là, ils l'ont servi d'une certaine manière, comme on les appelle la grande muette. Mais la grande muette doit pouvoir aujourd'hui sortir ce qu'elle sait et informer, comme nous le disons au niveau de la plateforme, éduquer par l'information. Je pense qu'il est important que véritablement ces anciens généraux ancien colonel, enfin, pas anciens, ils ne sont plus en en tout cas, militaires, colonels, généraux, commissaires de police et tous, douaniers tous, qu'ils puissent s'investir dans l'éducation de cette population-là par l'information et la force. Je pense que c'est extrêmement important. Euh, ensuite, les différents exposés nous ont permis de savoir que ceux qui sont là dans la rue pour défendre, pour assurer la sécurité et l'ordre, nous le devons respect. Le commissaire qui était l'a dit tout à l'heure. J'étais choqué d'entendre quelqu'un dire préfet Louboy Lambar Lambar qui, Mais c'est un ignorant qui l'a parlé. Il ne sait pas et les, les, experts l'ont rappelé. Le préfet doit être là sur le terrain pour apprécier et donner des ordres. S'il était resté dans son bureau, en cas de catastrophe, ah le préfet était dans son bureau, hein, il n'est pas sorti. Je pense que nous devons saluer le courage de ce préfet, comme tous les autres d'ailleurs, qu'ils soient préfets, sous-préfets, gouverneurs ou autres, qui sont là sur le terrain des opérations pour donner les instructions qu'il faut. Il en est de même, et j'étais content, véritablement, euh, commissaire, je vous tire le chapeau, même si je n'en ai pas. Quand vous avez parlé du capitaine J, vous avez parlé de Madjambal, dont le seul tort, et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur aussi, dont le seul tort, c'est d'avoir dit les manifestants ont été infiltrés. C'est le seul tort. Est-ce qu'il devait le taire tu viens chez quelqu'un may ñëw buntu kër Sadokh gis benn sàcc muy dugg ma ne non du pas. alors je vais sàcc mu dugg ci kër gi agressé ko peut-être sax mu le lendemain je viens pleurnicher avec tous les autres non et ce qu'ils ont dit mais tout le monde l'a vu moi je détiens des des euh, oui mon téléphone j'ai là des, des vidéos que beaucoup de gens ont vues dans lesquels des gens habillés, accoutrés d'une certaine manière, ont dit à 4 h du matin, nous allons bombarder le palais. À 6 h nous allons le résultat et nous allons attaquer l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée, c'est le palais de justice. Mais est-ce que nous, c'est des militants politiques Non. Des gens que vous avez vu avec des armes. Nous, au champ d'or, et C'est des militants politiques. Non. Donc que soit Madiambal, que soit le capitaine Dieye, que soit le ministre de l'Intérieur, ils n'ont fait que dire aux Sénégalais la vérité. Attention, nous sommes infiltrés. Qui les a infiltrés Nous le savons, mais ce n'est pas le moment d'en parler, ni le lieu. Nous en avons parlé à qui de droit et nous allons continuer à le faire. Mais je pense que c'est un acte patriotique qu'il faudrait saluer au lieu de les insulter. Maintenant, ceux qui les insultent, c'est parce qu'ils avaient un autre plan, un autre projet qui heureusement n'a pas prospéré. Donc véritablement, je remercie tous ceux qui ont pris la parole sur ces questions précises. Également sur l'instruction civique, euh, vous avez raison. Il faudrait que, ça c'est au niveau de l'État qu'il faut le décider, que dès le bas âge, qu'il y ait l'instruction civique au niveau de nos, du préscolaire, de l'élémentaire jusqu'au supérieur, et que même en cas d'examen, et vous avez raison de le dire, qu'il y ait un quotient fort ça, ça contribue à l'éducation de nos populations, surtout de, notre jeunesse. Je pense que c'est ce que je retiens fondamentalement des différents exposés qui nous ont été faits. Et le cours que le professeur a donné, je pense que doit servir de référence à tout le monde. Il faut se respecter. Il faut se respecter. Il faut respecter da respecter ce sa ki man musuma gis et je sais que dans l'arène politique je fais partie des anciens j'ai l'habitude de dire qu'en dehors du président Abdoy Wade yalla nako yalla may goudou fan ak yaram en dehors de lui je n'ai pas de maître en politique je n'en ai pas parce que ñi fi nek ñep du ni ñep ci la ont ma mais même ñi nga xam ne fekku ñu fi japp fait ne ëpp ma ci xam-xam lolu lu mu gëm la mais je n'ai jamais vu des Sénégalais dire nañ li dem jàppale ji colonel ndax dafa mën a saaga non nañ dem jàppale sa roxo ndax dafa reew déedéet dañuy wax nañ jàppale diw parce que dafa yiw parce que day wax wax yu rafet parce que nitu dëgg la parce que dafa am lu mu gëm donc ñun loolu la ñuy ànd ak nit donc keneen kuy jëfandikoo loolu dafa ne mën nga ci jaar pour arriver mais tu perds ton mon père avait l'habitude de me dire qu'il lay sànni xeer mi ngi dit que ginnaaw bu ko gestu demal suñu dit bu tedd mu baax mais daf daan wax ni buñ la waxee dit nga weddi ñu waxaat suba nga weddi ñu waxat nga ne na vous weddi ñu ne kon deugul ndax weddi won na donc comme disait Youssou Ndour dans sa belle chanson sa les autres nañ wax lu leen neex je pense que c'est une attitude que nous devons avoir euh, dinañu revenir ci yeneen occasion peut-être du pour parler de sujets yoo nga xam ni bokk na ci xëy na li nga xam man tey waroon naa ci def un exposé mais nous y reviendrons ces sujets-là les plus importants pour nous et les plus urgents aujourd'hui c'est la question foncière au Sénégal il faudrait que ñu toogaat waxtaane ko le président de la République créé une commission qu'il avait confiée à M. Doudou à un moment donné ensuite au professeur Sourang mais jusqu'à présent n'y a ni jot na pour que ñi ko séq ñëpp toog waxtaane ko parce que la question foncière est une question essentielle même si le président en a parlé l'autre jour à Diamniadio pour dire qu'il ne faudrait pas privatiser les terres mais ça continue à poser problème donc laaj na ay waxtaan j'ai l'habitude de dire que àjjana sax boo fa yóbbu nit te xamul ne àjjana nga ko jëme du la quelqu'un à qui on a donné des terres parce que aussi il faut ñu indi espèce ñu cette question là Sauf si on ko quand kan moo man mi waxe yeen yéen de ñii suma ay doom la ñu xam nañ ni boo demee xombal dafa am ay hectares et hectares hectares yu ma doon ak mais dama la mairie de Ndiéyène et de Ngoundiane ni bon on a fait le découpage on hein, a jox ay parcelles ça n'appartient pas la terre appartient à l'État donc yooyu question la yoo nga xam ni bëgg nañu ñu dellu si ci comme sur la question des manifestations la question des manifestations, parce que souvent, nous, en politique, nous disons la Constitution moi, nous permettre. C'est vrai. Et comme je le dis souvent, je suis à l'aise pour parler de cette question-là. Parce que j'étais là en 1975, en 1976, quand on se battait. Parce que vous dites que pour une réunion, y une autorisation. Au début du PDS, on entrait même dans une maison de déf réunion. Le sous-préfet de l'époque envoie des gens à la réunion. On s'est battu pour arriver à la loi 7802 du 29 janvier 78 qui dit que désormais, pour faire une manifestation, c'est juste une déclaration. Mais, déclaration, bien que la constitution, réglée. La constitution dit que vous avez le droit de manifester, de marcher, de faire des meetings, de faire ceci, cela. Mais il dit conformément à la loi. Et loi, c'est la loi que je viens de citer. Maintenant, nous avons il s'agit juste à la constitution c'est pourquoi nous avons dit question la boo nga xam danañ avec des gens qui ne sont pas dans des partis politiques mais qui sont des experts en la matière pour nous évoquer ces deux questions la question foncière et la question des libertés pour l'heure li ñu jàpp le découpage le nouveau euh, surtout au niveau de la région de Dakar où ça pose beaucoup de problèmes coow yu mais man bokk naa ci ñi gëm ni découpage bobu lu mënul ñàkk la lu wara am le surtout ci yenn endroit juste un exemple moy l'exemple de Sangalkam parce que mo ci gëna a fait ñëpp en 2002 2002 s'il vous plaît fàttaliku en 2002 la commune rurale de Sangalkam dafa y km 195 km2. kilomètres superficie 33 villages traditionnels ak ay cités yu bess def deux fois délégation spéciale découper de sorte que Sangalkam bi amone 195 km moins de 2 km carrés Sangalkam bi 33 villages y am 3 villages.

duma revenir ci ay waxtaan yu ñu ci doon wax mais bari na ci suñu biir ñoo nga xam ne ci woon te waxoon nañ ko à l'interne que ànduñu ci woon donc su àddina dox ba découpage boobu ñu war ko delloo defaraat ko pour que waxuñu Sangalkam amaat la mu amoon mais au moins dans le nouveau découpage je pense que Sangalkam occupe actuellement am na war na am ay euh, onze villages je crois des choses comme ça neuf villages ak ay cité nouvelles euh, l'autre communautaire a a villages avec des nouvelles jàpp nañ lu nopp dégg la xeyna nit ci taxaw mais wax ni ci découpage en 2002 ñoo taxaw tay ni bu ko kenn découpé waat donc da fay ni ñun nit ñun sa mbop ci laaj dama ci sa dañu intérêt personnel au détriment de l'intérêt des collectivités locales des collectivités de manière générale or les hommes demeurent les hommes passent les institutions demeurent donc nañu ko waxtaanee cette lan mo gëna rafet ñu défé ko noonu mais à mon avis ce découpage là mënul ñak il faudrait que ñu refaire ensuite nit du may bop rocc làmmiñ bu Buñu faté ni un découpage bu ñëwé ci décision autorité bu war a décider te consul moo ko ñu ne bu mu ko def donc il faut qu'on soit cohérent deuxième question bi nga xam ni ci laay terminer disons avant dernière question pardon moi, les élections locales le bari le mandat depuis des années prolongé prolongé je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles prolonger mais on retient que jàpp nañu élections locales, locale nous na préparé ci à dem ci ci ci ci population choisir ñi nga xam deux questions interpeller l'état du Sénégal bu ngeen dans les Niayes vous êtes jusqu'à Lompoul vous êtes dans le foot, dans les fins fonds du foot. macha les Sénégalais récoltés qui... Euh, pomme de terre qui soble. yaa koy wax <laughs> donc les ñu récolté qui pomme de terre qui soble qui qui qui chou qui yeneen ak yeneen kenn pas le mu donc il faudrait que dit bi jël en charge parce que bay baxna na récolter baax mais son récolter mënoo ko jaay ba banque yi lay lebal xaalis mënatoo leen a fay ça pose un problème donc il faut dire que dégg naa l'autre jour euh, le le directeur général de l'horticulture euh, l'horticulture le docteur Makouma Diouf muy wax ni état bi mu ngi tabax ay kër yo nga xam dañ danañ fa mëna denc les récoltes je pense que l'on doit accélérer mais l'un dans l'autre il faudrait que l'État ait pour mener les producteurs également dans les universités il y a beaucoup de problèmes il y a la violence il y a vraiment je le dis en présence d'un enseignant à l'université il y a une concertation entre l'État du Sénégal les ministères en charge de la question, les étudiants eux-mêmes, les responsables du cours pour que nous menions waxtaan pour trouver une solution à ces différentes questions parce que nous avons ne du loo nga xam décider mais nous avons mën a concertation je termine par remercier des personnalités qui nga depuis que nous avons annoncé bi nous même de l'extérieur ils nous ont appelés pour dire enfin gis nañu loo nga xam ni sénégalais yi sans ñu tenir compte seen parparloo war nañ fi mën a taxaw di wax seen xalaat on en avait besoin woo nañu guddi woo nañu bëccëg et parmi lesquels je cite d'abord le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et pourtant xam na ne li ñu fi wax lépp xëy na du doon luy neex le pouvoir ñi fi nekk xam na ni ñi fi nekk ñëpp xamu sax far mais il a salué fortement l'initiative en nous disant lu ñu ci war a def nañ ko wax mu jàpp <laughs> parce que de toute façon euh, le colonel a lancé un appel tout à l'heure c'est bien entendu Commence à nous dire, mais développer partout dans le pays vraiment pour autant que possible discuter avec les gens dem dans les universités rencontrer les étudiants dans les lycées collèges partout nous discuter les sénégalais je citerai également le ministre Mamadou Talla qui nous a appelé même ce matin même chose le ministre Omar Gueye et d'autres Sénégalais ont nga beaucoup de mais ils saluent l'initiative que nous venons de prendre il y a beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée la police la gendarmerie qui saluent également l'initiative que nous venons de prendre en disant que nous politique politiques, nous sommes parti mais nous sommes benn parti c'est le Sénégal donc vraiment je me devais de les remercier au nom de toute la plateforme maintenant. Euh, si la presse a des questions à poser, nous leur donnons la parole.